Salaam alaikum wa rahmatullah. Nous y n'aimons pas. Nous m'obéir contre mon bédard dans tout le monde. Nous sommes côté que c'est vite le long d'un caro à télé lulo 2021. Nous m'obéir contre encore que comme que vidéo le minke du ah, rom bin nata côté que na subscriber doya fo kuma chicken tandoori chicken tandoori nga wadda bi. so left another or did other so comme nga fa ñamé nak do subscribe eh? na ku nekk subscribe suma channel bi for more videos comme eh, nu ma leen ko waxee rek tey dama ñëwaatee suma benn subscriber moo wax pour ma defar chicken tandoori so loolu laa bëgg a defar nii comme eh, nu ma leen ko waxee rek every saturday dama dee ñëw pour tooga something um, uh, weaker days uh, uh Tuesday or Wednesday, dama day ñëw to about Gambia uh, comme Gambia ñu ñëpp xam nañ ne yenn saay foog ñu wax parce que nekkut affaire yi politique waaye foog ñu wax si because ni ku nekk sa dëkk so either good or bad foog nga wax so moo nag waaye tey. Uh, 5th of June, you know, 2021, Kumdamadelu Siwat uh, with another video. you Boise Makode for weekends because uh, the the weekends regular demunam time. Yeah, so seven. Uh, nain setan nakalenyo de for the chicken tandoori. Yeah. Okay, first of all, sumo sumo chicken bi dama fa def xorom. Uh, fa def xorom pour mu am taste. Mm. So chicken bi rek dama fa def xorom nii rek ay test rek ah waaw so chicken bi def naa fa right now so right now lu ma def rek dama pack loolu aside ma ñëw defar uh, ma suma tandoori bi so right now lii yogurt la yogurt uh, Lola laa def nii si lifin bi si paan bi right now so ñu seetaan bagages yi ma soxla yëpp ma mentional leen ko ok right now dama soxla uh, one tablespoon of ginger uh, ginger powder laa use hmm? so ma soxla a tablespoon of coriander Hmm. also have a tablespoon of coriander uh, one tablespoon of chili powder Hmm. uh, المصهر ده tablespoon of garlic garlic powder ok comme euh, yii def euh, salt nga am xorom nga am euh, laaj yaa ngi am poobar nga am turmeric Euh, yii laa def si palaat bi right now so ma boole lan fa nii parce man sama papa maa nekk di caméra so moo tax nag it will be difficult pour ma def yeneen yëpp uh, with one hand so moo tax ma def ko si palaat nii so right now uh, lu ma soxla moo nekk uh, masala si boppam dama use two tablespoon hmm, two tablespoon laa so waaye eh, dama fa jël diwlin tamit mu boole ko tuuti yaa so yooyu laa yooyu laa fa def so di dama ko mix eh, after ma doole def ganaar bi si biiram waaye nag eh, bu ma fàtte tamit su maa ngi am one one jimbo dama def ko fa right now one jimbo baa ngi ni def naa ko fa So uh, ليلى دام كورا mix right now ما you know دفا كنال okay right now دام كورا mix after my boy have a small lemon juice yeah I'm not I'm gonna just boys body is like I'm just gonna be put by neck and I'm gonna be a pie marine. Cause when I'm been in the ko defal uh kusma halayi so right now uh uh after book mungini hmm saf na saf so right now luma defal luma jël ganaar bi yépp def ko fa ganaar bi bu leen fàtte ne tam dama ko dogat dogat very important so ganaar bi yëpp eh, foo ganaar like eh, five ganaar laay use so five ganaar bi nii dama ko mix eh, si biir li yëpp after ma keep ko for roughly one and a half hour so balaa ma ko def lu ma def yeah so mu ngi ne right now mix naa yëpp ganaar bi yëpp mix na so right now lumada effect dama ko couvrir um, dama ko couvrir ma pack for a while yeah yeah Yeah. Mm-hmm. Uh, chicken masala. Okay, gonna be right now amongst a bit oven there. Huh? So, probably them na be probably uh, 20 minutes. So, dama wara ubi oven bi mahiche gonna be uh, dew butter. Butter bun bun bun sale be pare ma diw ko si ton ko diw ko si Uh, bo usé my explain li right now because caméra uh, buguma mu jege safara bi taman kena mane kadi caméra suno boppa so motan nag 20 uh, minutes la def si oven bi dama ko toon ma def fa diw bi naka bota wi bota buñ melt ba pare ya so suma ko defee ba pare dama ko delowaat si biir oven bi rovli another 20 minutes léegi mu pare waaw Okay, right now, uh, chicken tandoori prepared now. Don't go serve with chips. So they are like very easy. Those uh, um, ingredients like you know more gonna important. Toga buna ikaswa ame ingredients yame uh, do sona do do you know do jahle. So lila amontai puriana. Uh, Dila nyana samde bujama. Uh, yeah.